téléspectateurs de la télévision Futur Média maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax eh waay yëf yi dafa am bette fu waay nekk rek ñu ngi lay kontaane eh, dina la safoo tiitoro waa kay tocc mi ko mileno ñu ngi leen di bégee ay waay maaw li mu def xamu ko waay maa ngi leen de man aw ma ci problème de waaw ñi ci am problème du man de ki signé contrat bi am problème la waaw <laughs> ah, waaw waaw ndax ah, bu doon man ak man rek. waaw man lii feeñ ci man bariwul samay veer laak. waaw su waaw man garaawul. waaw mais yëfi jàmbur yi maa ngi. waaw Cissé yàlla yaa defal la jàmm. nga defee yàlla sàmm la. nga sàmm ma. <laughs> ayca jërë ngeen jëf yéen a ngi ci seetu Sénégal wax nañ leen que tous les lundis mardi mercredi jour bu ci nekk ak équipe bi nga xam ne moom lañ ci àndal bis bu nekk ak li nga xam ne moom lañ ci wax waaye bis yëpp yaakaar naa ni. Euh, dinañ ci wax ak Mayte bis bu nekk dinañ ci wax ak waa SVA wax ci ak ki nga xam mooy Pape Cissé wax ci ak ñoom Eva euh, wax ci ak ñoom Kumba ak ñoom ñëpp ci album Youssou Ndour bi nga xam ni mooy album mbalax mhm. douze titre wax naa ni mhm. boo xoolee ci écran bi da ngay gis QR code bi waaye dangay dem sa Orange Money mhm. nga dem ci li nga xam ni euh, moom mooy kii d'achat bi naka la tudd achat kii bi waaye kii achat bi yow kii en ah, Mayte kii code marchand bi waaw kay dem ci code marchand ba boo fa demee après da ngay dem ci QR code bi nga nga scanné ko boo ko scanné rek tarkal la mu jaay la album bi nga xam mooy album Youssou Ndour bi. ah yomb nga am ko ci saa si. ah am. paiement marchand waaw kay paiement marchand. Mhm. ak Orange Money. nga mën koo am album baa ngi noonu ci kanam ñu gën cee dugg gën cee waxtaan ànd nañ ak ki nga xam ni moom mooy euh, waa Saraba Bio ànd ak ki nga xam ni ñooy waa Muna Beauté ànd ak ki nga xam ni ñoom ñooy waa sport euh, vitamine drink ànd ak ki nga xam ni ñoom ñooy waa Jawda indi nañu lait waaye indi nañu jus. Mhm. ànd ak ki nga xam ni moom mooy aw kay. waaleykum salaam Aba. Euh, alhamdulilah. ñu ngi fànn ñëpp a ngi si jaaw sant yàlla tuuti rek ak embouteillage bu métti bi yàlla ba travaux yi ak poussière bi travaux yi la. Mm. président am na sax yu ma ci dénk yoo xam dañ koy gérer mais xam naa ne léegi mu pare incha allah travaux yi la. ban président euh, mooy euh, nga nuyoo. <laughs> ok nit ñi maanaam ñu. <laughs> Euh, Aba maa ngi lay nuyu once again euh, di nuyu euh, Mamran ak Samira di nuyu ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan every Wednesday ñu ñuy xaar rek Aba comme seetu Sénégal la ñu wax ñun dañuy gis suñu bopp si yéen yéen tamit likewise kon boog seetu bi la Aba ñu seetu rek ba ci kanam. nañu seetu ba ci kanam tabaarkàlla ndax lépp ñëpp comme ni ma koy waxee lu ne ku ne dafay nekk ci biir moo tax faaw ma gestu ci wet gi xool Samira nag Koulibaly Koulibaly tarkalla Koulibaly ca Mali. Koulibaly ca Bakel Koulibaly ca Tamba Koulibaly ca Kédougou maa ngi nii yaa soof ñuul <laughs> maa ngi lay nuyu gan maa wala la wax eh, damay wax dara man du man rek maa animé de non man xam naa waaw ah, man ak euh, réalisateur bi ñooy <laughs> xam du ñàkk bis dina ñëw ba mu teg fii 16 moom maaw ñu waxtaan man ak moom ci émission bi nee na kii nañ koy woowee Typhine en ah. <laughs> lu ko neex ayca lu bari. wallaay Aba li nga wax sànq rek moo am nee naa la émission bi du xewee fii rek waaye da ngay dem ba ci région ba di fekk wax yu sew ak yooyu donc maa ngi fay jaare rek di nuyu ki nga xamante ni mooy ah, maa ngi lay nuyu di la ziar nuyu Khadija Dafe nuyu gars leen ah, xam ngeen ni seetu Sénégal nag mooy le miroir du Sénégal da ngeen di xool seen bopp ci émission bi rek daal di ciy gis seen bopp donc mi ngi nii ànd ak ay produits yu xarañ yu leen nar a jaay jaay tey ci biir seetu Sénégal Aba. ayca moom la ñu woowee le showroom ah, donc lépp rek loo xam ne nit da koy jaay bëgg mu jaar wala nga koy wane bëgg mu feeñ xam ngeen ni fi nga koy wane heure bi heure bu baax bi la euh, fréquence bi fréquence bu baax bi la c'est la TFM ñi koy animé tamit ñu baax ñi lañ tarkalla yàlla na seen jàmm yàgg ànd ceeg xale caaroy bi xale bi nga xam ni la tëddatul ba nelaw wala bu nelawee tamit nelawatul ba yandoor ay muus yàlla yàlla defal ko jàmm dégg nga muus mi la ko jiiñ muus mi la jiiñ ni moo ko daan loolu dinañ ñëw ci kanam gën ci xuus mais <laughs> ma koy kalaame ci plateau bi di ko kalaame directeur yi nga xam ne ñoo ne ci kër gi suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ñuy lif di ko kalaame téléspectateurs yi ñuy seetaan ak internautes yi mm-hmm. bu tëddatee mm-hmm. na consommé mariage am mm-hmm. def ci lim ci war a def yëpp dimbali ma ngir yàlla war a suuri bëgguma appel vidéo. bëgguma falaam waaw bëgguma ay préparation yu ñu. waaw ah, fi nga ah, ma ñëw. ah euh, di ma war naan ma abaa maa ngi ci préparation yi. Ah, fii ak cinq minutes damay dem ci xam nga yooyu man maa daan sa la dimbali ma nga gérer ko teg même sama jàmm salaamaaleykum. waaw maa lay fay di la di la nuyu di la wax ne la abaa bàyyi si yi ngay def li waxtaan ma ak yow ngay koy andi ci palaato bii Euh, euh, aw maa lay lay nuyu. maa ngi nii di préparé wu. xool mais man naan maa ngi nii di préparé xool xoolal yi soxna si fekk. parce que da ko ne bu defulee li ko war da ngay jëlaat ndax. parce que parce que kii. léegi da lay tàggoo. parce que kii su marché bi neexee ba bii am. yow ñu fàtte entraîneur bi. ah léegi loolu lay kii entraîneur bi la kës ba teg la ci code. ah léeg-léeg ñu ruus mu yëg ci kaw ah ruus nan la bu yàgg xamoo entraîneur yow xamoo entraîneur yow dañ laa ma ne jour bi lu mu mën a fubal mën a fubal. waaw bu dugalee bii. waaw na bàyyi xel entraîneur bi. ko tax waaw bu fa bi nekkul jar ma koy bàyyi xel. <laughs> maa ngi nuyu ñu ni seetaan bàyyi ma waaw ma. waaw mais Samira maa lay nuyu ah, di nuyu Awa xam nga boo waxee Gambie rek sama xel day ne ci Bakaw Birkama tonte bu trafic laayet mhm. lekk naa fa ebe ba tàyyi di nuyu waa Gambie yëpp di nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñoo nuy bëggee ah, di wax ne Pape Sylla tey émission bi dama ko kaa bëgg a jagleel parce que maa ngi dund loo xam ne bëgg naa mu dund ko te Pape Sylla nit la koo xam ne nit ku baax la te mën nañu kaa bàyyi muy tudde moom kase mhm. ah bu yeewoo lim sàngoo woon baramu ba nu yaakaar ne dafa am xale yu si jaar mhm. loolu nañ wax Pape Sylla ñun li ñu nekkee abaa lay nuyu di la wax ne la di la jaajëfal sama xam Pape Sylla am na benn snap boo xam ne na ko gis na nit ku dugg ca dépp ba mhm. xam nga buñ nee ca dépp ba waaw ma nga nekk foofu nga xam ni euh, moom mooy euh, ca HLM Grand Yoff mhm. moo nekk en face li nga xam ni mooy pont de l'émergence bi waaw en face pharmacie Sëñ Saliou waaw xam nga Pape Sam euh, Pape Pape Sila dafay taxaw foofu lu bari waaw ku fa dugg quantité boo jënd xam na ko waaw waaw mooy euh, euh, sport drink <laughs> kii bi. xam nga xam nga nit koo xam ne yaa xam ne rek di wetti ci biir yàq daal ndax lii démb benn bitel aba lii da ngaa dama ci yóbboon benn bitel mu tuuru muus mi nanti waaye kenn nelawul. ah waaye suuf daal suuf ma ne waaw ki muy woo ah mare suuf mare ma ne kenn nelawul. lii na war na noo xam ne muus mee naan lii daa dese ñam daa tuuru waa naan si moo ko doon naan ba mu tuuru <laughs> daa këpp <laughs> eh, eh, eh, maawo may ñu clip may ñu clip ñu waxtaan ndax Mame Rane mii wallaay man li ma ko bëgg a interdire mooy ban épisode mooy épisode final ci mariage su Mame bi ñun tamit ñu mën a waxtaanee suñu mariage Euh, kii waxtaanee relation am nga may ñu tamit temps tam. waaw ah, parce que dinaa leen may ngeen wax. mu ne. dinaa dinaa leen may ngeen wax. waaw waaye kenn ku ne na ah na li mu yëg rek. waaw kenn ne calcul li mu yëg yëg. <laughs> yéen ko moom xale bi way na ko. interprétation boo xam ne ah, dafa jaayaat xam nga xale yi di def ay euh, kii ay. cover yi. peut être saa yi ñu fekk son buy waaj dem ñu indiwaat ko moom mi dafa def ni son bi. moom macha allah voice am is just unique very outstanding ma koy bay nag Mounass Mbow Nacha dafa bëgg Dieyla so much so that ba mu ne sama anniversaire fu Dieyla mun ci nekk indil ma ko kon moom dafa bëgg Dieyla and Dieyla has a very epic voice maa ngi koy xoolee Kumba Gawlo Seck. ndeysaan si si si voix bu naturel buy jéem di way nii rek yor téléphone am voix bi day neex ba pare macha allah ba pare mu nekk jeune Abba. yaru yaru te ah macha allah yal na ko yàlla la fal jàmm. boo ma ne da ngay réew da ngay da boo ma ne da ngay réew da ngay ba ciy boole ab ab yar. non ñi ëpp ñi daan ñuy gis ñuy mën. waaw dañ ci boole réew de. waaw mais mais xam nga xam nga euh, boo ma ne boo mënee dara soo ko waxee rek. bu dee quatre personnes ñoo fa nekk ñëpp dañuy am sentiment ci li nga li nga def. te loolu daf ma daf ma dafa woy rek mën la kii mën na trop. daa mën na trop mën na woy mën na woy mën na ngeen woote ci numéro yi nga xam ni moom moo affiché euh, seen suufu écran te ngeen koy gis 88 628 65 65 88 628 22 22 88 628 02 02 03 03 72 86 88 628. 04 05 88 628 yooyu yëpp mën ngeen koo gis ngeen mën a woote ci numéro yi nga xam ni mooy numéro yi affiché wu seen suufu écran ngeen mën koo jot yaakaar naa ni fa ñu nekk baax na ñu ànd ak ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Mouna Beauté eh, Mouna Beauté nekk ci kanam Samira Koulibaly loo xamal waa Mouna Beauté waxal leen li ngeen xamal lépp. li ma leen xamal tey da nga ma envoyé SMS. Ah. ci WhatsApp bi. ma liir ko waxal ci waa mun a. waaw mun a buti tey laa leen di yoole tey dama leen di yoole euh, produit yi ñu indi woon keroog laa leen indi laatal tey donc produit yi damay répété waat ni que produit yu baax la am nay gamme réparatrice am na ci boo xamante ni mooy gaaw bu rapide boo xamante ni en cinq jours bu fekkee da nga am anniversaire wala nga am événement important boo bëgg a dem mën nga diwoo lii en cinq jours incha allah sa temps day belli set wecc waaye yemuñu ci am nañ ay huiles yoo xamante ni mën ngeen ko utiliser pour seen propre lait de ngeen utiliser ko pour seen visage. pour ngeen am kanam gu set kanam gu nes nes yi donc Mouna Beauty la waaye Aba aussi am nañ li nga xamante ni mooy seen savon bi man savon bu baax laay wax savon bu baax bi da ngeen koy jënd bu leen neexee mën ngeen ko utiliser moom rek daal di koy sangoo chaque jour da ngeen di gis seen teint ni muy bellee ngeen euh, xamante ni mooy euh, teint bu bu rafet teint bu lisse comme niñ koy waxi teint bu velouté buy naay naay <laughs> teint boo xam ne foo romb ñu ne waa xale baa ngi noonu di dem mi ngi noonu man loolu waa Mouna Beauty rek laa ciy wóolu nee naa la seen gamme nag dafa bëri mais mm-hmm. li may gënal ci yéen mooy ngeen jënd gamme Gambie yëpp daal di xam ne lépp lu ngeen soxla muy crème visage muy euh, crème pied crème main wala huile bi ngeen xam ne da koy def ci seen propre lait de corps mun a laa ci wóolu aba pour ngeen dem fa euh, am na loo xamante ne tamit bu dee métis nga da koy daal jël rek euh, du la yàqal dara day daal di gën a sa teint bu dee teint noir nga bu dee teint clair lépp lu ngeen bëgg rek xam leen ni mën ngeen dem ci fi nga xamante ni mooy mun a mu daal

nag bi soriwul wala ngeen dem HLM Grand Médine fu ngeen dem rek nu a buti da leen koy defal ba mu yomb yow fu ay nekk rek tarkalla yéen ñu eh. ah, a mu mel ni war a ah, ah, xam nga léeg-léeg nga am coono na loo xamante ne nii a <laughs> nekk ku yaa ma ko gën a xam waaye fekk nekk nit mu awoor doo sërëg ni ma ko bañee. <laughs> da ngay xool da ngay xool tey mami Thiam ni mu bellee. nga xam ne ngi toppatoo boppam bëgg naa fekkee sa cinq sa dix ans ma xool bi. ah benn lay ah, ah, <laughs> ah, euh, doon euh, euh, suñuy partenaire lañ dañuy gunge ci li nga xam ne mooy sedd Sénégal Awa right Aba uh, Saraba bi yoon ni nga ko waxee uh, boo leen jógee si teint bu rafet bi macha allah tee bu uh, bu am éclat bi da ngay daal di dem toppatoo li nga xamante ni mooy sa karaw ba tax na waa Saraba bi yow indil ñu li nga xamante ni mooy gamme cannelle nee naa leen gamme mi ngi fii nii pour seeni cheveux what sort of boo am any sort boo am rek façon karaw bu nekk boo am rek Saraba bi yow seen cannelle gamme bi nii it's the best for you surtout nag su fekkee ne da am problème leel euh, comme Abba euh, wala wala comme ñun jigéen yi nga xam ne da ngay takk perruque all the time euh, ngay am problème mu leel mun ngaa use seen product yi dama ciy dégg sama tur dama ciy dégg sama bi leel ah, voilà ah, bëriwul karaw xaw ma lan la. amee ah, man sama non non aw ma karaw bopp. ah ah, ah non non Aba bu karaw. da nga naan Aba amul karaw bopp. ah karaw bopp nit ñi yem ci li ñuy gis. non non mënoo waatal nit ne amul karaw wala kii nitu karaw man maam naan bu la ko waxee du ma gëm. nitu karaw laa. dëgg la dëgg la garaaw nitu baal ma ba eh, kaay kaay baal ma kaay. kaay dem ne. waaw léegi la moo tax ku ci nekk Saraba Bio non ci kaw la bëggoon Saraba Bio euh, bele passé waxoon naa leen euh, fu la karaw soxal rek euh, war nga ko faa mën a diw xam naa loolu la Aba di def moom mi ngi use li nga. waaw kay waaw kay taxaw taxaw taxaw taxaw non non non non non xaaral xaaral non non xaaral awa kay lii mën nga cee dindi sama tur bi waaw wala déet. ah yaa saraba bio gi. mais yaa ko fi indi de. kon jaay ka yaa di diriger table bi. jaay la ci génne. jaay saraba bio dama koy jaay. fu wa nga ne fu karaw rek mën naa fa def saraba bio ayca ayca defal la waxal la ne. amiin fu karaw wala li <laughs> <laughs> aja subhanallah aja nga nekk baax mu ngoog euh, saraba bi yow mi ngi noonu euh, euh, lii yëpp pour wan leen rek ne karaw is important si si nit surtout ñun jigéen ñi nga xamante dañuy takk perruque all the time da gis ne perruque yi sometimes dañ koy tegee teg boo xamante ni du baax day yóbbu suñu eeji si yëpp mu nga use saraba bi yow bi pour loolu yéen nga xam ne da ngeen am nappi also mun ngeen a use li nga xamante ni mooy saraba bi yow su fekkee ne da def frisé and muy sa karaw yàqu and stuff li nga xamante ni mooy Saraba bio euh, bu ñu ci jógee nag Aba euh, li nga xamante ni mooy euh, seen beneen product bi si gaam kanel bi mooy li nga xamante ni dafay yokk ween daal di yokk say fesses say hanches you know mu daal di la jox dak round figo macha allah fii ngay dem waa saraba bi yoo ngay daal yemuñu foofu noonu tamit li nga xamante ne mooy lèvre rose euh, ndaxte jigéen nag wax dëgg neex yàlla boo sourire say lèvre dafa war a naay yi xaw a am pink color euh, ñoom tamit loolu daf leen euh, soxal lool ba tax na saraba bi daal moo fi nekk pour am yii nii yëpp nag aba da nga leen di call si 77 609 78 79 quinze 76 643 0 01 37 wala ma répété waat 77 609 79 75 wala nga dem fële ne la si usine benn tali euh, foofu la ñu nekk euh, en face fi nga xamante ni mooy école euh, Madieye Sall Aba mi ngi noonu Saraba Bio for all your hair use. ay te waa Saraba Bio mu ngi noonu tabarkàlla xale yi bëgg a jongama xale yi nga xam tarkàlla bëgg nañuy belli gis ngeen li nga xam ni moom lay def ci xale yu jigéen ñi ñëpp ah, di leen yokkal seen yi nga xam ni tarkàlla xeeti baax baax la ah, xool li bon ci yow mu dindi ko. li baax ci mu yokk Habib rek moom moo ñu ci doy waaye ki Maawo Cissé Rousse tamit war nañu ko wax ñu mën koo woo téléphone ñaan ko njëkk mu woo ñu Maawo Maawo wàññi baatam bi ndax mu ngi ñëw fii ci biir antenne bi ngeen xool Maawo Kalabous moo xam Yuusu moo xam Njaga moo xam Buuba mhm. ki Maawo Rousse moo xam Aawo bi la war a mhm. ñaareel bi ki mu Rousse nu xoolal ñu ko rek waaw du ñàkk ci ñaar ñooñu waaw ci diggante Aaw ak ñaareel <laughs> nan ñàkk comme ci Rousse nee na nee na fi nekk noonu comme ni ñu mën a toogee nii ne Awa Gueye ci kanam ah. euh, ban clip nga choisir euh, Fanta ak ah. yow. waaw nee na moom day choisir nii. waaw ah. koy wax ci kaw ba ñëpp dégg. pourtant nag daf maa rus dama lay ñaan njëkk rek euh, man moom en tout cas choisir naa Pipana man avant kenn di choisir. après eh, mbalax mee bari après xam nga mbalax da nga ciy gis ceebu jën ah. ay tungu ne moo ko tëggal ak koor mais mbalax mee bari kii li mu waa mbalaxam mee bari o oh, kii waa ba pare sa géew yaatu mbalax mi bari tabarkàlla nga nga baax jaar góos jaar duwaar xaabar xaabar dafa mbalaxe xale bi xam nga xam nga tey ñi fecc mbalax tey euh, euh, ñoo kii ki nekk euh, TFM te nekk ci émission bañ ma dàqee fu mu nekkoon ñu dàq ma fa. Alima Coppet Alima mi nga xam ne moo ne ca. Alima émission bi laa fàtte. kàkkatal nga xam ne ñi fa nekk sax dañuy soppaliku. Ah. waaw dañ maa dàq ah def ma leen daara ñu dàq ma yow nii. 2STV ku fa nekk def ah, ah. euh, kii émission bi ñuy toog avant ñun am na benn sama yaay moo koy présenté. avant kan wareef sama yaay ji nu mu tuddati. ah sama yaay bu baax. dégg nga ah kii ak kanati kii kan mooy def par samedi seetu bi seetu bi kii. ku baax <laughs> tànn biir noo def sama réew la noo def ma organiser ko. noo def ma organiser tànn biir am samay marraines. tànn bi ñu ngi ko tuddee. sama yaay. waaw Eva Tra. bind. bu borom wareef dimbali leen ma ngeen bindal ma. dimbali leen man angale laay <laughs> bind. leen mooy borom wareef. waaw marraine waaw Alimatu Coppet. dëgg ci émission bañ ma dàqee. di la biisu ngoone. jàkkaarloo 2S. tey lii. beneen marraine. Amina Poté. ci seetu Sénégal. waaw ah, kenn moom. beneen marraine. sama yaay. Ndéla Madior Diouf. <laughs> ci j'adore les j'adore. waaw lii man damaa tiit nekkate maawa dama foogoon ni daf maa jox cër. xam nga ni lii mu génnee nii jamonoy synthétique yàlla sama yaram bi di tàng. may ànd ak xale yi foog ni maa ngi am 15 ans. da nga mbalax mais maa ngi mel ni majorité ndeysaan xam nga tànk yee déggoo. allergie da ngay da ngay mbalax maa ngi ci ci ci fecc bi. dara nekku ci bon daal lu nga daaneel ba dañuy xaar ba léegi daa ñëwagul waaw ñu ma ne ko kii gis nga maanaam bi mu wëndeelu ko. lu ne sama xel mi ah, xam naa ne bu Adama yaa commencé ambulance. nañu dem ci li nga xam ni moom mooy euh, album bi wax naa ni album bi mbalax ba nga jënd li nga xam ne mooy album bi boo ñëwee nga scanné li nga xam ne mooy QR code bi wax naa ni dix personnes yi nga xam ne ñoo njëkk a jënd album bi ni toll ni tembe tembe dañ leen di may ay affiche yu Youssou ma jigéen waaw dañ leen di may ay affiche yoo ak pochette xam ne yu yuusu la tarkal la may leen affiche yu mag xam dañ koy def seen saal seen néeg xam nga yooyu léegi xale yi amatuñ ko waaw abaa abaa abaa comme ni rek xam nga ñu ngi ci waajal loo xam ne danoo war a dem ci dëkk yi nga xamante ne foo la mool yi ne dëkk yi nga xam ne lëbuñ fa la ne ñu def fa ah, ah, way wi moonu fa yu gunge mm-hmm. mooy way wi mooy mool yi Euh, te si li mu woy yëpp a part euh, euh, gàgganti. gàgganti gàgganti I love mool parce que ñun li ñuy lekk yëpp suñu kër yi. mool yi ñoo ñu koy indil. waaye est ce que nit mus na xalaat pour wax leen thank you. waaw waxoon na ko de moom. waaw xam nga woyoon na leen so thanks again waaye comme ñun de younger generation ñun suñu génération. peut être duñu xalaat loolu so moom dafa kaay ne indiwaat baak suñu xel ne ñi nga xamante ni guddi Abba ñun ñu ngi nelaw buñ la jaayee jën nga ne oh dafa cher dafa nii fekk euh, daj nañ ci lu bari bari sori. maa ngi loo ci xamul euh, ma ne loo ci xamul léegi da ngay gis nit jël 400000 def ko ci euh, essence. di wëri jën. xam nga tey bu ñu demee ba nit di dem ba Gambie. dem ba Casamance jóge Ndakaaru dem ba Casamance di wuri jën fi naan ci géej mm. am na ñoo xam ne ñaari fan dañ koy am ci ci géej bi kon donc bu leen yuusu wooyee woyoon na leen da leen a woyaat waaye wi nu mu leen woyaat nag daa bokkul ak woy wële bu ci boo ci teg da nga yaakaar ne moo ndax morom mhm. bi mu koy njëkkee way dana leen ayoo ay ñu dem géej mool ba jaaxle mu ne rambaaj li tubaab bi bëgg a géej yëpp géej géej fer bu feree ko gis mu sopp mbaalu mu ragal tant tant tant tant tant nga naan tant timolo timolo mool ba dem na géej bu demee bu demee yaay ba biir géej dëgg mu sànni mbaal mbar ma daal di dig. si la sànni caasa caasa jàpp gaynde géej. mun loolu woote noonu la bu ko defee bu ko deful ca lay na leen dafa indi. Ah. ne sama fan si yëpp. waaw moo lee ma gën a ndax moo lee ci gën a daas. ah waay kii waaw daa dootul wayi lu mel nii. may ni loolu ñu xool. mooy ñoo ma gën a xam fu ma nangeeg ñoom guddi ga day ça. ayca <laughs> ndeysaan déggal loolu xeetu mbalax gi nga xam moom la Youssou indi ci album bi ayca mën ngeen a participer ci euh, seetu Sénégal yéen tamit yéen ñi ñuy seetaan ci numéro yi nga xam ne affiché na ci seen ay euh, suuf euh, kii TV 88 628 ngeen def 65 65 88 628 ngeen def 02 02 wala 03 03 wala 65 65 wala 72 86 ban 76 60 500. waaye wax ma waxal waxal waxal mu ne ma jum ci numéro yi bu ma ko whatsapp wax ko ni ma dégg ko 628 aba aba 628 <laughs> awa awa 628 ana ana 628 raan raan yan mooy 628 yi baax yi 65 65 am na ci 72 86 am na ci 02 02 am na ci 03 03 am na ci 04 05 am na ci 65 am na ci yaa naa maar ci numéro téléphone yi lan la li ma wax ni du loolu lan la ko kon lan la ay <laughs> te na mandran euh, kii euh, nanu ñaan euh, Pipana. waaw nga xam ni booy bi. Mhm. Ami Mbengue mooy yaayam. moom mi xale bi invité nañ ko ci weekend sat waaw mu ñëw toog ku ci nekk nangu ne dafa mën a way am talent am nangam te xamuma woon ni man Ami Mbengue yaayam. Ami Mbengue mel te booy la boo xam ne sama booy la. maa ko yar daan ñëw ci man am talent. di créer ay lu nekk mais dafa génne son. Mhm. ñëpp tiktok ko ñëpp bëgg ko. ndeke yaayam daanaan la. parce dafa waxoon sama doom jàngal. so Maada yaa ngi ci Maada Ba. ah yaa nga ca Maada Ba. kooku Maada Ba yaa nga ca Maada. kooku Maada Ba ah, kii ku am foofu ndox. ah dinañ teg ndox mi ah, xaaral xaaral xam nga xam nga nit. xam nga nit xam nga nit kenn du ko yedd en direct. waaw may ma euh, pipi pipa naa nu waxtaan. waaw ñu may ko ndox waaw. yow Maada Ba. maa ngi benn pipa. ah boo ñëwee xaar leen rek xaar leen rek maa ngi pipa naa nu waxtaan dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw. <laughs> nan nga may mu nan nga may meew dama ko daba ki nga wax ami mbeng ah ko jaawale ak maa daba dama la bëgg a laaj ana daba as usual waaye dafa am lu ci yokk mhm. I don't know if you get it. Mm boat bi and stuff like that the cruise you know it's just nice it's Viviane daal. Mhm. <laughs> it's Viviane so uh, teeya uh, it's important ak nit ku nekk war nga teey ak ak lu munti xew whatever the situation is aba teey dafa baax teey baax na teey lu am solo la donc ñëpp war nañ di teey euh, lu xew rek situation bi ak lu mun xew rek teeyal ah, teeyal ba mu leer la teeyal ba gis lépp teeyal ba xam lépp teeyal ba ba waaw waaw teey euh, am na solo lool lool lool donc comme ni ko Viviane waaye waay waay na ko pour ñëpp ñun par exemple saa ñu nekk ci ay situation yoo xam ne boo teeyoon dañ ci génn mais par exemple saa doo t ba barki yàlla waaw xam nga teey tax xam nga teey mooy tax tey bu ñu ne kii doomi ami mbeng la euh, nga xam kii ami mbeng waaw doo indi maada doo indi <laughs> tamit mooy tax doo gaaw a way ak soxna si duñ la ko may may may doo ko gaaw a way ankay ankay na <laughs> indi teey tax buñ la waxee numéro bi 88 la 676 nga mën a jàpp 676 bi bañ a fàtte nit ñi ci 628 gi waaye nag loolu lépp lu amee Youssou way na Diouf. waaw waaw waaw tey tamit tey tamit mooy tax bu ñu nee kaay présenté. xale yi seen petit gàlle yi ñooy def show bu lëmbal teer rek nga présenté dem ñibbi nga bañ a lëmbal. mais yow yow lu tax lu tax nga mel ni. tey mooy tax bu ñu la réalisé loo nga yem te te noppi tey tey mooy tax bu ñu joxee ne la réalisé nga noppi rek tey réalisé noppi waaw waaw. Ah, <laughs> yow ban song choisir. waaw yaa ngi waaye waaye waaye.

ab ab ab may nuyu Mbaye Balaye Mbale toog. kan ak euh, Mbaye Balaye Mbale laay Maxtaar. Mbaye Balaye seen alimaam bi. Ah, di nuyu Lamine. Lamine xam nga ne fu ma ne ma nga fa. waaw di nuyu waa Thiaré. kii sa waay la moom waaw sama waay la Lamine. témoin waaw moo def lépp moo teew fu ma nekk moo fa moo signé yow loo signé monogame <coughs> yaa ngi dégg fi nga nekk yàlla dafay jàmm fi nga nekk yàlla dafay jàmm Samira ban song nga choisir aba man euh, li nga xamante ni mooy teeyal euh, damay dem muuri xale maaw nee na euh. nu maam wax lu mu parce que fii buñ fi toogee lépp day leer parce que àdduna ñu sant mooy yaa ngi dégg xam nga li des ñu tëdd léegi bëreetul maire yi boo ñëwee ci maire maire baa ngi noonu. man de xam naa ko. dañ lay laaj. <laughs> monsieur le maire lay laaj. wala adjoint maire bu dee maire bi nga xam ne mooy suñu maire la moom. waaw maire Yoff. Euh, moom day nekk ci ministère ba. donc adjoint maire bee fay nekk. moom adjoint maire bi moom moo lay woon. ne la monsieur. waaw avancé nga avancé. waaw mademoiselle lañ koy wooye moom parce que kenn mayeegu leen. waaw est-ce que vous êtes prêt. à vous unir. votre vie. unir vos biens unir vos cœurs unir vos sentiments unir vos communications unir vos unir unir devant Dieu devant Dieu est-ce que vous êtes prêts à être ensemble pour le meilleur et pour le pire ah, <laughs> monsieur Mamran monsieur Mamran tu le bic tu vas signer. polygami euh, tuuru moo ko gën a yomb ba mu signé. <laughs> man soo nga choisir. waaw ah comme dañu nekkoon ci waxtaan euh, li Awa Gaye wax sànq tey dafa. dafa baax si nit ah suuf ngay wër. wallaay daal loolu la. dama ci suuf. abaa ah man dama choisir ki nga xamante ne. Ah, ni ba jàmm la wa yow eh. dama choisir ki nga xamante ni xale bu tey la c'est une révélation euh, mi ngi doog euh, engagé li nga xamante ni mooy carrière am muy mbëgge mooy li nga xamante ni mooy yaa ngi gaañ nañ dem xooli ko léegi ñëwaat. ayca nañ dem xooli yaa ngi gaañ de mbëgge te ñëwaat léegi ci plateau bi mbëgge from Prince Art mbëgge Tata mbëgge All Star Sen benn place la buy jaay fee. ah da nga ci waxaale si soxla <laughs> da nga ci waxaale li nga bëgg a wax. ah ba kay boo bëggee wax naa toog fi mu neexoon toog fi naan Ousmane mi nam. am na Sandaga. mi nam am na Pikine am na Parcelles. xam nga li nga wax ni sama ma indil ma xale yii. ak soxna Khadija indil ma leen. waaw mu solal leen dàll. waaw jox leen ay accessoires. di jox leen sàkk. mi ma Khadija Ndafe mi ma naan demal ci waa commercial ba nga gisee. nee na ma indil ma ko. nangu na wàcc da koy da ko ci boole. waaw waaw koo ci woo xam nga Khadija mi ngi ci wax moo tax. Seex am naa koo xam ni. day jàll nit ñi ñaaw ñi peinture leen ban rafet <laughs> ban jour ngay féex ban jour ngay am jot Cheikh tey daa feebar solo lu net Cheikh ban jour ngay am jot ma yóbbu la ci waa ji mu mu dese waaye yéen Sénégal ñu ñu jël nit ñi di leen def ñëpp mu desene leen yéen loolu fii leen fekk. waaw léegi léegi lan la dañu ma bëgg a yóbbu ci benn réew. waaye ah dañu ma bëgg a changé. man def nañu ma ko. man ah, la la man de yegg seegul woon fotal ñëpp lañu desene. waaw ñëpp lañu dañuy waaj a dem xëy na Disney Disney kii. Disney la réew mi ah ñun ñoo leen neexoon ñu bëgg a changé wala ah. Ah, de maa ma bu si mel noonu. <laughs> mais li ko léeg-léeg nga romb ci dessin dañuy jàpp kanam abaa bi xaw ko may karaw tuuti ki def bu grand père bi tooñ na waaw bu grand père bi waaw. ki ko waaw waaw ki ko def da ko yóbbu trop à doo da ko càmmoñal daal bu grand bi dafa càmmoñe. ayca nañu dem ci meew mi nga xam ni tarkalla mooy meew mi. Jawda nga xam ni indil nañu meew ak jus waaye meew mi wax naa ni moom la ñuy waxtaanee ba semaine bii di ñëw meew mi am na meew moo xam ni moo gën ci croissance su xale yi. yaakaar naa ni moo gën ci seen yax. Mm-hmm. bari na euh, vitamine am na. calcium meew la mu am solo waaye am na mais moo xam ni c'est pasteurisé boobu tamit ba tey pour xale yi la mm-hmm. ñoom ñoo ko moom bu ñuy dem école moom lañu ci yóbbu waaye am na meew moo xam ni cent pour cent lait entier naturel la mm-hmm. am na crème demi écran xale yi xam nañ ko bu ñuy togg ak bu ñuy def ci seen yëf am na ci boo xam ni sans lactose la maanaam moo gën ci booy booy booy digéré loolu lekk boo ko naanee day sedd ci guy yi meew mi nag daa disponible ci grande surface yëpp fépp foo dem muy magasin di boutique boo demee laajteel meew jawda dana la koy jaay meew mi neex na maam boo sonnee gëmmentu bëgg nelaw naanal meew xam nga maam daan sa xel mi bu soree ngay xalaat lu nekk bëgg xel mi daal naan la meew. Mhm. ak lan la meew di def ci nit maam daan. waaw mais ah, ah, xam nga meew. Ah, dégg maa dégg ngeen wax ba wax. même yow sax lii waaw damaa bëgg nga ma ma wax tuuti. Aba meew mii du pour gune dañu koy bokk yi. Mhm. meew mi ah mënoo jël jox ko bàyyi mag ñi. Mhm. xam meew li muy def ci nit ku ne xam na ko. dëgg la waaw boo bëggee nelaw. nelaw yi gën a gaaw mm-hmm. naanal meew mm-hmm. abaa man damay naan meew lu bari mm-hmm. parce que dama koo bëgg parce que bu ma ah, bu ma gëmmantuwul ma damay jël meew naan ko lii nag bëgg naa après bu jógee ci meew ñu ñëw ci lii génn nañ ci meew nañ dem ci lii waaw nañ dem ci lii lii uh-huh. mooy vitamine drink uh-huh. maam daan vitamine gii waaw dem bi nga dem sa kër yóbbu nga ci waaw yóbbu naa ci mu tuuru uh-huh. mos mi naan ci <laughs> ah mos mee ci naan jox ñu film bi rek ah waaw léegi muus bi ah xam nga lii ni mu déggee. maa ngi naan un ak un. waaw muus daa mën a ibbi li ngi naan si meew bele. te ñun ñëpp xam nañ ne. yow bii nga naan. waaw de noo xamee ne man mi laa nag lii mu ne muus bi daa tuur muus bi naan ci. muus daa mën a tijji lii man lii laa dama dama kaa tijji pour que ba ba xëy naan. Ah. mu booy yi nii que mu tuur muus bi naan bi nga xam muus bi naan kenn nelawul démb mareetu <laughs> mareetu man waaw mareetu mooy kan. en tout cas vitamine drink bi moo gën ci bu ñu sonnee. waaw maam raan moo gën ci bu ñuy dem salle du sport euh, moo gën ci boo yeewoo sa yaram taayil. moo gën ci boo waree dem waxi. moo gën ci boo waree dem yëg ci kaw seen. moo gën ci booy way. gën ci boo nekkee acteur. boo nekkee euh, joueur loo mënti nekk rek. Mhm. lii moom moo ci gën gën ci ba gën ci booy soog am soxla. waaw waaw li dafa baax ba li dafa baax xam nga man ma wax ma dara waaye lii la nga lii wañaaru nii. waaw boo xam naa ne xam ne am na lu tax ñu waaw lii wañaaru am na lu tax ñu wañaaru day naan xam li tax mu wañaaru dragon daa xam nga li dafa ànd ak loo xam ne am nga yóbbu nga ci benn bitel démb dragon bi la lii laa wooy fi tax waaw yoo xam nga bii bi nga yóbbu nga ci benn rek rek waaw yow koy yóbbu wooy nga yóbbu nga ci ci laa dëkk di ci di ko naan laa dëkk <laughs> waaw léegi lii boo ko naanee moom laa wooy fi tax loo tayal tayal loo kalm dama bëgg boo ko naanee yow nooy def fi tax nu muy def fi nooy doxe fi tax wala wan nu ni ngay doxe rek boo ko naanee eh? ni nga doxee. Ah. boo xam naa ne ni nga doxee. waaw waaw. Hmm? <laughs> yéen a ngi toog jaa ngeen jëf faal jaa ngeen waay faal jaarama ah, yéen a ngi toog mais nag bu booy waaxu nag bu dee bu dee waaxu nag. baax na ci kuy sport tamit. kon niñ ko defee si kii bi baax na ci kuy sport trop parce que day booster li nga xamante ni mooy sa énergie. donc macha allah ñoom ñu fi nga xam ne moom mooy euh, ca Grand Yoff euh, ca pont bi nga xam ne mooy pont émergence ba euh, moo jàkkaarloo ak li nga xam ni moom mooy la pharmacie. Serigne Saliou mën ngeen woo ci 78 196 43 56 wala 78 325 23 53 ba tey numéro téléphone yi nga xam ne mooy feeñ ci télé bi. waaw am na ci yoo xam ne 98 la. waaw 88. waaw 600. 628. déedéet problème bi ngeen am ak numéro lan la. mu ngi feeñ hmm, kay. Ah. Ah, problème bi ngeen am ak numéro lan la <laughs> lan ngeen am ak problème numéro. 676 yàqu nunu nga yaakaar si diggante bi. 02 02 88 676 03 li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal 88 <laughs> ngeen mën a woote ci numéro yooyu. yow euh, ñu dem ci son yi. waaw ku ne nga xool son yi nga xam ne moom nga bëgg. waaw mm-hmm. nañ tànn par kenn kenn. Mm-hmm. Awa Gueye. vous êtes de. Eh. <laughs> Awa man man dama sensible <laughs> no way ni bàyyi ko de. waaw oh. <laughs> ah, ah, ok. Ah. vous êtes à la barre. oui je suis là. tu es en train on est en train de te kii laaj ay question ok je suis prête. ton son d'aujourd'hui si on t'avait demandé de choisir un son. Mm -hmm. tu allais choisir quel son. Euh, je choisir. Euh... ma fans. mon fans la wala ma fans. ay ko ci anglais. right ba corrigé leen maa wane na dama a xam yow ok euh, ma fans. koo dama ko bëgg. Mhm. ñëpp xam nañ ko. Mhm. Euh, mu wéy lu am solo loo xam ne sax euh, yeete la. intellectuel. voilà jàngkat bi. gis nga de Aba moom tamit mu ibbi dugg ci li nga xamante moom. Euh, mi ngi génne euh, son bu neex bi nga xamante ne il y un mois atteindre na li nga xamante ni mooy un million de views tey ku xam bëggee xam ko ci Prince Art ku xam bëggee xam ko ci Sen Petit bi nga xamante ni xale yëpp prouvé nañ macha allah bu may wax instant bi damay généraliser parce que Sen Sen Petit ñoom ñëpp prouvé nañ ah all star yi macha allah donc euh, mbëggee man li tax ma choisir way bi en dafa nekk loo xamante ne actualité la ñun xale jigéen ñi dañu bëgg suñu bopp. Mm-hmm, bëgg make-up bëgg cheveux bu baax. pose ongle bàyyi chaque détail compte chez les jeunes mhm. filles donc moom tamit mu interpréter li nga xamante ni mooy son bu neex bi macha allah qualité d'image bi aussi euh, ma ci wax chaque fois parce que euh, gis nga dem nañ ci différents décors ak li nga xamante ni mooy shooting yi mu def ci Eben Prod et tout ça donc mbëggee daal actuellement je dis que man mooy mooy sama chanteuse préférée sincèrement fi ñu toll nii parce que euh, booy xool mbëggee di nga gis Coumba Gawlo la mhm. booy nga gis touche doxalin bu rafet boo xamante ba pare classe bi nekk ci moom dafa dafa dafa a am classe quoi macha allah donc dañ koy ñaanal yàlla rek lafal ko cat euh, en tout cas ñun ñëpp rafetlu nañ musique bi li nga xamante ni mooy waa Prince Art ñoo ko def te def nañ ci moom benn éducation benn yar boo xamante ci ñoom sax laay wax benn yar boo xamante ne ak ki nga xamante ni mooy tataangone donc xale dañ leen di lafal cat waaye nag képp kuy way na nga pare te xam ne xale seen petit gallé tamit euh, yeneen xale yi ñu ngi mais Abba est-ce que xam nga beneen affaire mm-hmm. est-ce que xam nga li nga xamante ni mooy son Youssou Ndour yi ci album bi mool euh, zéro déchet ak euh, balaago nu mbay ma mm-hmm. xale yi seen petit yi ñoo ci doon aw xale yi seen petit yi ñoo ci aw mm-hmm. donc da ngeen di déglu way bi bu baax a baax di nga dégg euh, Youssou Ndour mënuñu ko nax ci musique wallaay lu jëm ci wàllu culture ak art mënu ko cee nax bu xoolee ba xam ni xale yi am na loo xam ni mën na ko aw moom mm-hmm. aw Youssou Ndour c'est pas aw n'importe qui c'est pas ah, la génne xoolal Aïda Samb aw Youssou la génne ak Ami Collé Biram Dieng ñoom ñëpp si aw ah. ñu génn mm. aba bi way wàccee ci réew mi mm. soo ko dalal aba ci réew mi ay yu soo ko dalal wayli wayli la kenn naa mënu kaa nax ci way moom rek mooy way waaw ñeneen dañuy aw <laughs> ah, Youssou rek kay way ah ku ne dañuy aw yàlla xam na ko bilaa aja mu ngi noonu donc mu ngi noonu album Youssou Ndour bi tarkal la ñoo wax ci musique ba daaneel te doo wax ci Youssou noo def mu mm-hmm. pëddaxlu ci eh, su mbaxlu ci Youssou la c'est c'est c'est lui la musique ah, c'est ça donc boo waxee album boo waxee son bi mbëggee la mm-hmm. mbëggee way wax aw gi mu aw Youssou noo def nga indi album Youssou wax fa ñu koy jaayee orange money ne boo demee ca li nga xam ni mooy code marchand ba nga dem dugg ci QR code bi daal di koy euh, scanner ko mhm. defee nga dem jënd sa album téeku mhm. bokk ci dix personnes yi nga xam dañ leen di may affiche ak mhm. ay peut-être yuusu et pourquoi pas ni on sait jamais on sait jamais lépp mën naa nekk lépp mën naa nekk yëfi yuusu la waaw yëfi yuusu la ay mbiram noonu la toll fii mu toll ci réew mi saa bu mu xëyee war nañ koy sant di ko di ko ñaanal ndax mënoon naa jël li ko yàlla jox def def ko ci poosam waaye defu ko dañuy woyal bégal nu ba pare ibbi fu ñu mën a jëriñoo mm-hmm. déedéet am na loo xam ne boo dëkkee ci dëkk di ko def dafa baax pour ñu wax ka loolu dafa am solo yàlla pour wan la ni pour wan la ni euh, yuusu ci concert yi muy def ren yëpp yëpp maam daan kaw seen bu ma taxaw mun naa la ci may benn une minute nee nga waa waaw loolu bu dee bu fekkee avancé waaw doo avancé. waaw ñu xati amul amul sant lamin amul dara na def rek da waa wàccaat. Ah, waaw kese <laughs> nee yàlla. yow yàlla sa dañ la war di ñaan. eh eh, eh nañ dem eh, waa Saraba Bio ñu ngi leen di kontaanee mun a botee jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waa Jawda eh, lait ak jus waaye jërë ngeen jëf vitamine drink ñu ngi leen di kontaanee ba xam maanaam ban son nga tànn yow fi ñu ñu avancé. waaw Waly waaw waali waali ah ca naturel la bon waaw kii nee naa la 10 ans sax dafay ñëwaat naan la ba fii may wax ak yow nii dama koy may ah, ah, waa mu ne faja sob waaw Fadia Shop la may son bii. Ah, ndax fi ñooñu waaw ñoo def lii Fadia Shop. Mm, fu ne waaw boo demee fële ca Kër Massar. en mm-hmm. face M3 bi. Mm-hmm. fa la ne. Mm-hmm. Ah, jox nan la moo nga dalee. après xam naa dinañ gisee. maa ngi leen di kontaanee. waaw kontaanee leen waaw Bamba waaw nit ku baax. ñoom Bamba ak équipe nekk. waaw nit ku baax naan ataaya ak ñëpp. waaw ñu ngi jëndee sëbiñ bi mën na ma ko maytu. non naturel loof nga ñaan. waaw waaw loo signé doo ñu wax li nga may. waaw wax nga ko nag Sénégal Sénégal. bu ci kanamee tuuti kenn ku nekk ak néegam bàyyi ma bi abig bi du daj sama yoo xam du ko lal kenn ku nekk ak néegam <laughs> ku lalal ci suuf ngay wër man lal tudd ma ci suuf ah ba bàyyi ma loolu. ma alors kon kii kat jabar la si. ah yàlla tere yàlla tere yàlla tere ay yàlla ah li lan la ay kii la laax def can. am ku ma doon waxal naka te melul noonu yàlla dogal ma gis nga yàlla mën na am nattu moom fu ne la jóge am la jóge kan moo la wax ne la lu zone la sol ba nga sol ko damaa bëgg ñu waxtaane ndax day am kenn na du la tekkal micro cas euh, maa ngi lay nuyu sama xarit bi Euh, lan laay waxati. yàlla eh. euh. tere duñ ko laal. Euh, ba bul nekk jërëjëf. jërëjëf maa ngi xaar. tey nag ku seetlu ñu may li ñu may jot jeex na. waaw li ñu may jot jeex na. non non non. maa daa jeex. lii. li jeex bi maa la ñaan lii. ah nga si naan dimbali ko la. kenn du waaw mën nga waxee fii xanaa non non non taxawal mën naa bokk ak. sa dund wax. waaw salaamaaleykum maa ngi siyaare képp koo xam ni euh, yaa ngi may yaa teewlu. di nuyu sama ancien ménager du fi nekkoon euh, te yàlla dogal na yàlla def na li gën. waaw ma koy nuyu au ndax dara mosul ñaaw. Mm-hmm. waaw di fi di nuyu <coughs> di nuyu ki fi ne. ndax dëgg fa yàlla liggéeyam rafet na. Mm-hmm. Imaan liggéeyam rafet na Imaan. Iman yaa ngi dégg Soro lay wax Iman. Euh, Iman liggéeyam dafa Fall euh, damaa gis léegi en direct euh, bëgguma turu turam. soxna si toog. def vidéo lancé ma di ma di ma kii cas événement am la. loolu moom la moom artiste comédien la. le 27 le la Sam's Prestige. Sam's Prestige bu Thiès mhm. loolu événement am la. Mhm. bokkut ak man mi nga xam ni damaa nekk sama carrière nekk sama yoon. man waaw kii nañu bàyyi. may ma rek Iman man damaa nekk ci sama yoon. waay may nu. nekk artiste musicien compositeur di liggéey sama liggéey. lii ni may def ah kii di ko nuyu. ndax taarikal la. Ah, euh, non non. Ah, man sama carrière. guitare xaaral nga wàññi léegi ñu ngi jaay seer. mais bu fàttali Awa Gueye mii moo doon laajte. bi euh, paase bi nga ñëwee say daal naan kii fan la jógee Awa Gueye mi waaw dëgg la mais Fall Fall sama fan si maa ngi leen nuyu. sonn nañ ci man loolu barki alxuraan karim sonn nañ ci yow mais yow dafa am lu ñuy laajte euh, ñi foog nga leeral leen ni chaque mercredi ñun on répète parce que dañuy préparer Abba show mais lan moo tax ñi répété ñëpp waaw lan moo tax ñi répété ñëpp te nee na du comédien de la moo tax ñi répété ñëpp dañuy dem toog fee ci biti mais yow boo ñëwee yow da nga bëgg euh, feeñ wala euh, da nga yaakaar ni yaa ngi fay wala lan mooy problème bi ba chaque fois il faut nga feeñ. feeñ taxumaa jóg. mais juste pour yëgal sama fans yi nga xam ni Abba Show bi la 3. Eh, yan fans la yi ah, ah, nga fekke woon fa nga demoon fee. di Louga. di leen wax ni Abba Show bi di ñëw. ay auberge yi. ah boo demoon ci auberge bi moom oh, moo gàttoon ànd ak ku njool ki. di leen yëgal ni Abba Show bi di ñëw ngir yàlla nañ ma beral samay fans. Eh, bu fekkee euh, ana ak ja defe bu fekkee da am euh, ay yooy jàll ay numéro yooy jàll mun naa commencé di jàll fi ñu toll émission bi li ci des daa bareetul euh, fi ñu toll nañ la gërëm nañ la say fans dinañ leen ber ndax dinañ la xaar ci bunt bi te xam ni yow doo bokk ñu joué ki jaay gitaar gi nag dinaa ko wër ba gis ka ndax yow ah, dañuy tànkee pelent gitaar gi ka jaay fan jërëjëf Fall maa ngi nuyu nag képp koo xam ne yaa ngi ma safoo di ma tiitaroo di nuyu fans club bi nekk Washington leen nuyu. maa ngi nuyu eh. fans club bi nekk Bargny maa ngi nuyu. sama fans club bi nekk biir Gambie. maa ngi nuyu bu baax maa ngi bi nekk biir Ouest Foire. amul amul amul amul maa ngi leen nuyu Fall. amul amul amul amul loolu yaa ko defar léegi. léegi nga ko def nañ la gërëm nañ la vraiment ñu ngi lay kontaan bu baax xam naa dañ la bàyyi nga dem. le trois tamit gars yi nañ ci sama fans te Fall nañ ma jox ay billets ma def si ñoom jaay leen ndax dama bu ñu te leen a ber. pour nga bañ a ñëw pour nga lekk xaalis bi. pour nga demaat Louga pour nga demaat Louga. nuyu ma cas. nañu bu baax ci ànd bi nga xam ni àndoon nañ ko ak euh, waa Saraba bio ànd ko ak waa Muna Beauté ànd ko ak euh, waa vitamine drink ànd ko ak euh, waa meew Jawda ak jus Jawda kontaan bu baax ci ànd bi yow yaa ngi ah yàgg dëgg la ayca na jeex. maa ngi yow depuis ba fii ba yàlla yàlla mën na lu ne moo taxit <laughs> euh, chéri euh, mami Camara. maa ngi lay ziar sama doomu ndey Awa Gaye thank you so much. maa ngi baax a baax a mm. baax kontaan noonu nañ en tout cas toog fii di leen wéttali ah def ak yéen ambiance ak lépp ak aba non stress lépp rek ci seetu bi non stress laa ko tuddee man. Awa Gaye bi wax ka waxal nañu. lan moo ci nekk. ah léegi da bëgg wax yu sew. kii sa mooy. kii sa front am prince. Oh. am. <laughs> ok ok ah salaamaaleykum sant nañ la Awa Gueye sant nañ la gërëm nañ la. non non non ñun ñoo kontaan ci yow. waaw Westphal bisu naa leen. ah Awa ah, Gueye. <laughs> excuse me. Euh, waaw waaw Westphal. bisu naa leen bon am na koo fa bëgg a bisu rek. waaw kooku bisu naa ko ayca ayca kon ayca ah, ah, ah, di leen jox dig daje rek incha allah ba another Wednesday on Saturday eh, di wish happy birthday to suñu yaay eh, mama Diarry Ba Pulo eh, di yaay Ramata madame Agne sama yaay di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram suba la anniversaire am ba dañ koy wish happy birthday in advance xoolal rek comme Khadija rek numéro yaa ngi noonu ñi nga xamante ne ñoo jàpp si sañse bi di leen jox rek dig daje Aba. di kontaan bu baax. Euh, moom Mao Cissé euh, xam naa ni euh, man incha allah lundi yi ak mardi ak mercredi bii di ñëw man duma ñëw. damay réaliser maaw mooy toog fii. Ah, waaw ah, man damaa sonn waaw waaw. loolu léegi nag Awa Gueye tàggoo na ki nga xam ni moom mooy Fanta Samira tàggoo na Ibou Diagne chéri bébé Daaru Bayu Marie ah di kontaan bu baax ci ki nga xam ni moom mooy Baxaw Diagne di ko souhaiter un bon anniversaire ah Baxaw na dund Baxaw la mooy anniversaire non. baxaw anniversaire baxaw nag na dund lu mu dund doyul. Eh. yaayu Aziz maa ngi koy kontaanee bu baax a baax a baax maa xam ne ma maa ma bokk yaay. Ah, mooy sunu yaay léegi. Eh, maam daan kontaan nañu bu baax sant nañ la gërëm nañ la eh, waxal sa mot de la fin. waaw ma may ñi nga xamante ne di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan. di jaajëfal ñi nga xamante ne nii tey jii ñoo ñu safoo ndax lii bi mu commencé ba léegi abaa ñi ko bëgg na. soo baa ngi yéeg de. waaw mu ngi yéeg am forme de. ah kay koo xam ne. émission yi doon suñu tool ñu ngi ñu ngi ah ñu ngi am problème waaw conseil la di wax ne bi ñoom nañ teg clip rek waaw di la wax ne la yow sama xarit nga yàq courant ak direct ak yeeg yooyu da nga yàq waaw waaw di la di la wax ne la di la jaajëfal sama xarit nga waaw Fadia Sop ah, di leen gërëm di leen nuyu waaw loolu multimédia Abdoulo Abdoulo nit ku baax Abdoulo ni mu baaxee moom a yéem waaye lenn rek aka jaaxal ah Modou Lo Abdoulo moom lan la si wetam la daana waa la naka baax ñoom ñaar a bokk bu <laughs> ko waa laa yow bàyyi lii pour lan la waxal nuyoon maam waaw nuyoon naa pare lii pour lan la nii bu dee bëgg nga sénégalais yi nga xam ni tey ñoo la def ni nga mel. waaw bëgg la bu dee sénégalais yi nga xam ni audio boo génnee ñu partagé ko. bu dee sénégalais yi nga xam ni bañ la invité ca rajo ba RFM. waaw fàtte xaju fi. waaw nga toog di wax ñu support la. waaw ba benn sénégalais ci biir sénégalais yooyu. waaw am sa numéro. ba envoyé la SMS yow en tant que sénégalais. nga dem ca ndar gi mu dëkk nekk biir Sénégal. muy sénégalaise ngay sénégalais. ngeen dem labalante. labatante labatante ba takkante. muy sénégalais yi nga xam ne ñoo la def ni nga doon. ñooy laajte. waaw membrane lan nga signé monogamie wala polygamie. waaw bu dee fekkee ne Sénégalais yi bëgg nañ may tëddee ci kaw nan ma bàyyi bii ma tànn ko suuf man bëgguma ci suuf waaw lan la na ma Sénégalais yi bàyyi ma tëddee ci kaw lal bi a si ñoom ma tëddee ma wala léegi mës naa ko gis.